nekk na ñu mbëri ngi noonu di ñëw Balla Gaye ngi noonu ànd ak Sëñ Mbàkke ngi noonu ànd ak Sëñ Mbàkke ngi noonu mbëri ngi noonu Gora Xaas ngi noonu ànd ak mu ngi noonu mbëri ngi noonu mbër ziar jaajëf Sëñ Mbàkke ziar naa la mbëri ngi noonu di ñëw ànd ak Sëñ Mbàkke di ñëw fii nga xam ne mooy ngénte sumbulu bàcc li séeram bi léppam kon mbëri ngi noonu di ñëw mbëri ngi noonu gars yi savante moom mbëri ngi mbër a noonu ndeysaan mbër a ngi noonu ah bon ndeysaan ñu ngi naan Balla Gaye la ñuy teer jaakaaru jën yi ñu mu ngi noonu saafante ñoom mbër a ngi noonu mbër noonu di ñëw jërëjëf ñëw loolu am na si may waxee champion bi ak finance si saa ni yàlla jàmmam yàgg waaye yàlla naa ma xam ne. waaye Franc Balla ak Serigne si la. am nag ah Serigne la am nag ah man boobu. ki nga ne nee parce que tey ki am nag kay donc ziar macha allah. ñëwul toog nan nan ma nan ma abal chaise mu toog moom mën naa sax dalal demal su famille bi la bokk moom. andi ko ci kanam waaw. bu toogee rek presse bi nekk à côté ndax ay kilifa fi toog ay sëriñam a fi toog moom loo wax mu ne taalibe Sëriñ Tuubaa la voilà toogee ñu may ko. waaw bu demee ba toog rek gars yi may ko tuuti dal mayee tuuti dal fii libre. dëgg la waaw dinaa leen may 3 minutes. non wàññi naa ko 2. yéen la presse maa ngi leen noo bokk liggéey bi. dëgg la soo leen ko jëlee 2 minutes kenn ku ne dem fu ko taxawoon. jàmbaari sëñ Basiru Baara sama baay ma daan wax maam Mor may sa baay léegi kon toog na kon toog na dañ ko may nuyu sëriñ see loolu sëñ Mourou laa toog surtout sëñ Mourou maa mën a toog macha allah maa ngi noonu di nuyoo nga xam ne mooy kilifa yi ànd ak Mbàkke mu ngi noonu macha allah mu ngi noonu di nuyoo macha allah Mbàkke yi Mbàkke Balla ñu ngi noonu macha allah Balla ngi noonu koo xam ne Mbàkke Balla di taalibe eh, di bëgg ku bëgg Serigne Touba mu ngi noonu di nuyu nga xam ne set Serigne Touba yi lañ mu ngi noonu di nuyu nuyu set Serigne Touba yi macha allah. macha allah wallaay wallaay wallaay wallaay. ngi noonu. léegi nag nañ ma évacuer presse bi. nañ ma évacuer couloir bi mu set wécc. bu bàyyi ko mu wallaa ngi noonu di saabonte ndeysaan mu ngi noonu. wallaa ngi noonu di saabonte li nga xam ne mooy. wallaa euh, ngi noonu di saabonte incha allah. léegi nag waa presse bi yëpp nañ ma may nag. Mbacke Diop. damaa bëgg bu ñëpp. Mballa macha allah Mbacke Balaye. mooy damay ñëw waaw waaw jërëjëf jërëjëf damaa bëgg bu ñu toogee sëriñ Cheikhouna ki Congo fekk ma bokk sëriñ Tuubaa dañuy liggéey dafa nañ sëriñ Fallou Seck jàng ko xasaay man ci laa la non non sa waay noppi nag comme ñu nekk noppi ñun ñëwuñu pour kii bu sa xew boo bëggee ëllëg da bu ñu dañoo ñëw mais bu ko su xamee daw ak bu ñëwee màkkee kan bu ko feeñ bu fépp ma lay jël ay ko lépp gars yi. waaw la presse dimbali leen ma nag. pare nañ pare nañ ok. wuyu leen ma pare pare nañ non pare nañ. pousse leen. kon nuyu